attentat bi am keroog. ah non ça c'est la les casses aussi les attaques des infrastructures. acte criminel moom. Mhm. ku ko posé ku nekk dañu war a jël toutes les mesures idoines pour que tu répondes devant la justice sénégalaise. Mhm. su fekkee ne yow la daan ñu la war a daan ñu daan la ko parce que li ñu def yaraax ba faat ay bakkan loolu mënuñu ko nangul kenn. Mhm. bu doon sama doom sax mënuma koo nangu suma laat bu dekkul suma doom il faut que ñu état bi def liggéeyam foofu ba mu mat sëkk parce que on met en danger la vie de simples citoyens qui vaguent à leur occupation traditionnelle. Sénégal lu mel noonu xamuñu ko woon malheureusement c'est arrivé euh, ndax jàpp nga ne jii on a franchi le Rubicon comme on dit. non bu yàgg na yàgg na c'est c'est c'est c'est gravissime c'est gravissime bu ñu demee suñu dëkk ba egg foofu moo tax il faut sévir. dans faire exemple. voilà il faut sévir. il faut sévir il faut pas avoir de de de de des états d'âme d'état d'âme sur ça mm-hmm. il faut sévir c'est-à-dire ñi ko def nañ leen seet jàpp leen juger leen si normes yi condamné leen li ñu leen war a condamné bu fekkee ne ñoom ñoo ko def. mais est-ce qu'on n'a pas laissé faire wala maanaam li xaw euh, bërki dem yarax euh, monsieur le maire dafa mel ne on voyait venir depuis des années. Mm-hmm. Euh, violence bi xëy na verbale la tàmbalee. Mm-hmm. après physique ci moindre mesure. muy yéeg ndànk-ndànk mais te ji ba seetloo Sénégal dañoo dem ba dañoo sax banaliser li nga xam ne mooy les morts te xamuñu ko woon mm-hmm. bu njëkk un mort deux morts ñëpp la daan métti mais léegi boo seetloo même les accidents euh, pirogues yi échoué euh, on en parle après on laisse passer maanaam la mentalité du Sénégalais est-ce wul soppeeku tàmm loo xam ne xëy na baaxul ci ñun non laisser aller bi dafa commencé yàgg ci réew mi aussi ba ah, bu ñu mm-hmm. fàtte aussi euh, l'événement du bateau le na fi 1863 morts 1863 morts bu ñu fàtte que en 1989 Sénégal jàmbaarloo woon na fi ak mu naroon na fi jàmbaarloo ak Mauritanie. Mm-hmm. ñu naan événement naar yi. événement naar yi en 89. ñuy rey ay nit mais tout ça l' état est resté debout. Mm-hmm. gérer cette situation de crise ba jàll si. c'est-à-dire que donc luy yàgg di am si réew mi la. 93 am na yu fi xewoon aussi bu ñu ko fàtte aussi. ba ñu fi juge démissionné fii ñu rey fi un juge c'est-à-dire que. il faut que ñu xam ne réew mi loolu mënta koo ne di fi dox c'est ñu nekk ci état de droit respecter aussi la ligne rouge mhm. ku ko franchir nag aussi état wala institution yi war a dal sa kaw dal sa kaw dans toute sa dans toute sa dans toute la mansuétude requise mhm. pour que ñu mën a avancer